أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu di jaare ci yow di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi teew ci jataay bi mbaa ñu dégg suñu kàddu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ñu nekk ak bërëb bu tedd bi ñu àddoo di ziyaare mbokk yépp di nuyu waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiitu sëriñ Afiya Imaam di leen ziyaara di leen ndokkeel
jërëjëf sëriñ bi ci nuyoo bu jotale bi te matale kon ñu doole ci laaj njëkk bi day laaj ne ndax dagan na ci doom mu wuutu baayam su fekkee baayam munta woor mu wuutu baayam ci joxeel ko aw ñam
jërëjëf sëriñ Cheikh xam nga woor yàlla ñu ko man la ko sant koo xam ne danga am ngànt ba mënatoo woor te muy ngànt loo xam ne amuñ yaakaar ci ne dana dañ mais nit ku wéradi wéradi goo xam ne yaakaaruñ ne dana wér te mënu ko boole woor wala mu màggee màggee ba mënatoo woor ñooñu woor wàcc na leen waaye nag sopp nañ bis bu set ñu lele ab mudd lu tolloog liibar ak xaaju gën waa liibar ci ceeb bu dee fii loolu nag ak jaamu yàlla la bu jëm ci alal moom way juy bu ko mënee sopp nañ mu def ko su amee kenn ci njabootam ku ko mën a def rek dara nekk ndax jaamu yàlla la boo xam ne ci alal rek la aju jaamu yàlla bu mel noonu nangu na wuutal kon moom doom mën naa wuutu baayam ci génneel ko fidee yi nga xam ne dañ koo sopp ci ku lottu ci woor waaye ñu bàyyi xel ne nag nekkut lu ko war dañ koo sopp rek mu di ko def ndax su mënoon a woor woor la koy wax
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu nekk ab membre maanaam mu bokk ci mbooloo moo xam ne dañ ne dañuy xeex xeetu tooñ sàngam te mbooloo moomu sax attewul sharia al islam
waaw xam naa bokk ci mbooloo moom bu dee ci buntub dimbalante ay jullit yuy ànd di dimbalante ci sottal loo xam ne lislaam daa woote jëme ci bu fekkee ci misaal mbon mbon goo xam ne dañoo bëgg am na noo di digle ka tere ak di laabiire nit ñi ba yooyu ñu mën koo sori loolu lu baax la ndax day dugg ci buntub al amru bil maaruf wan nahyu anil munkar waaye bu bu dee loo xam ne nag ci loxoy yoon loxoy nguur la war a nekk moom ay nit mënuñoo dajaloo doon mbooloo bëgg a saafaral seen bopp kon saa boo xamee ne mbooloo mi li ñuy xeex ci alxikma wal mawisa alxasana lañ koy xeex ànd ci ab kuréel di ci jàppalante di wàññiwu dara ndax attaawunu ala albirri wa taqwa li ma ci xaw a jaaxal nag li ma wax ne mbooloo mi atteewul sharia kon day mel ne du mbooloom jullit ab jullit nag du ànd ak ñu dut ay mbokk jullitam mbaa bokk la ñuy dimbalante bu dee ci mbiri àdduna la nga xam ne dañoo bokk àdduna di jàppalante loo xam ne njariñu ñëpp ci nekk it da xoonti wut ak li lislaam tëral su boobaa mën nañ cee jàppalante ba tey insha allah
kii moom day laaj mu ne bayitu sëriñ tuubaa wi radiallahu anhu lu muy teg yaa mulhiman qad wafaqa salli ala man xuliqa walxalqa faaqa xuluqa kalxalqi wal tusallim
waaw buy doowu de ci jazbul xulub la nekk sëriñ bi di ci wax ak boroomam subhanahu wa taala ko yow mi nga xam ne ñaar yaa koy def yaay ilham yaay tawfiq ilham mooy yaay sol nit ab xam-xam boo xam ne jàngu ko wala xamal ko njariñ loo xam ne yaa jékki-jékki jox ko yow mi nga xam ne it yaay may nit tawfiq ba mu mën a def lu jat mën a topp yàlla mën a def lu jat maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal maa ngi lay ñaan nga dolli mucc sa mbindeef bii nga xam ne mbindeef la de waaye kawe na mbindeef yépp ci jikko ni mu leen kawee ci bind maanaam moo leen gën a mat ci zahir ak ci baatin moo leen gën a rafet bind gën leen rafet jikko salli ala man xuliqa waaye nag wa faaqal xalqa kawe na bindeef yëpp xuluxan ci jikkoom kal xalqi ni mu leen kawee ci ni ko yàlla bind
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci koo xam ne day tukki di wàññi ak julli ndax dagan na ci moom muy julli julli naafile yi
waaw ci mazhabu imam malik day tukki buy sab buy waral wàññi julli du tee naafile du tee naafile ñëw na ci mu dawana ñu wax ne aji julli ji aji tukki ji buy naafile mën naa naafile ci kaw daabaam ak fu daaba ji jublu te loolu sax na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fatxu Makka gis nañ ko ci barab mu julli fa juróom-ñetti rakka julli yor yor moo tax ci mazhab bi dañuy wax ne naafilay bëccëg yi ak yu guddi yëpp aji tukki ji mën na ko def yëpp waaye nag woyofal gi ci am mooy mën naa naafila ci kaw war waaye maanaam tey bu duggoon ci oto mën naa naafila ci biir oto bi te su boobaa jublu xibla nekkatul sart ci moom fu oto bi jublu rek mën naa jublu foofu waaye nag day naafila naafila yi ñu baaxoo def yëpp
jërëjëf sëriñ bi mbokk mi day laaj mu ne ndax wér na ci kuy jàng alquran xarfu doot mu di ko jàngee laam wala dool liin muy jàng wala laal liin
waaw xam nga al alquran xuruf yi ci làkku arab la wàcc arab bu ci nekk la ca war mooy ñu jànge ko nañ ko war a jànge mooy nam nam mel loolu mooy ku ko man ko ne looloo ko war lu dagat nag ci ab jullit bu mën a jàng doot ni ñu ko war a jànge mu bàyyi ko fa jàng la waaye bu dee nag ku ko mënut lam man lay def xam nañ ne ñi nga xam ne nàmpuñ làkk wi bari na ci ñoo xam ne am na xuruf yoo xam ne mënuñ ko kon nañ ko mane noonu lañ ko jàng ci mazhab bi wax sax ku jàng noonu ci alxuraan booy julli faatixa wala saar yàq yooyu bu fekkee ne tëyoo ko wala dañ cee lot bu yàq dara ci julli bu yàq dara ci julli li li baaxul daal mooy nga man ko ba noppi nag lànk bañ ko def day mel ne boobaa dañ ne jàngal alxuraan ci nii nga man koo jàngee noona bàyyi ko fa nag di jàng neneen noo xam ne da nga jàng alxuraan waaye daal ku ko mënul ndax am na ñoo xam ne jànguñ wala doal li jànge waaye baat bi daal lañ koy jànge ki ko jànge daal ak ki ko jànge laam na ñooy te sax am na ñuy wax ne am na ci ci penk ay xeet yoo xam ne baat dañ koy jànge laam du ne du ne fiiri laam waaye loolu nag ci ki nga xam ne da cee lot mënu ko bu ko defee dana baax insha allahu taala donte nag war na ci jullit bu ne mu jéem a def yitte ci jéem a xam làkk wi xorof yi ni ñu ko war a jànge ba ba miitale ndax làkk la woo xam ne du doonut làkk aw xeet waaye làkk diine la kon ku bokk ci diine ji jox ko yitte ba arab yépp mën koo jàng loolu war teefee doon ci yow ba fa nga mën yem
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jaay ay mbubb yoo xam ne dañ ciy def turu ñu football wala yu mel noonu
waaw bu fekkee ne moom lu ñu jublu ci jënd gi muy màggal leen wala boog dafa lënkaloog loo xam ne seen diine la ci du lislaam su boobam du dagan ci ab jullit muy jaay yu mel noonu amma bu dee siiwal dong lañ jublu it nag duñ mën a wax ne baaxul waaye nag mooy ndax siiwal loo xam ne amul njariñ am polo te yàlla bindul nit ñi ngir ko bi ci des it ñooñu ci nataal nekkuñ ay roywaay ci diine bu fekkee ay roywaay lañ ci ay caaxaan ci am po ñooñu nag di leen wane mu mel ne dañoo bëgg ndaw ñi jël ñii def leen ay roywaay dal ci ñoom di jéem a mel ne ñoom àdduna yàlla bind bind àdduna ngir mu jëm foofu dafa mel ne nag ñu koy def li jëpp dañuy xem moom loolu nit ñi ne melokaanu ñii ñuy wax ci nataal yi ñoo loolu mooy tekki kon fexee leen mel ne ñoom bu dee loolu la mu baaxut ndax ñooñu nekkuñu rewaay nekkuñu rewaay seen cheikh
kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne julliwul takkusaan ba mu demee bay julli timis mu dal ko fàttaliku
waaw bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku day dagg julli gi bu dee imaam ak bu dee kenn kuy julli day dagg julli gi moom ndax toftale julli gu teew ak li ñuy tuddee julli yu jiitu yu néew waajib la day dagg timis ji bu fekkee ne am na benn rakkaana bala ko dagg na ci def beneen muy ñaar mu jàpp ko naafila sëlmal xanaa mu am ñaar rakkaa yu ma sëkk ba sujjóot ñaari sujjóot yi door a fàttali kon day àggale timis yi fay tim fay takkusaan ja baa mu waat timis loolu sopp nañu kon ilimaan day dagg julli gi te bu daggee it lii ma sóor ci masal bi mooy maamu ngi dañuy dagg foofu bokku ci barab yi ñu wutal doonte am ñu ko wax waaye li gën a dëgër bokku ci bu dee kenn kuy julli moom day dagg julli lu dul ne daa am ñaar rakk yu mat sëkk kon na ko àggale bu dee maamum nag moom du dagg julleem day ànd ak ilimaan bu ilimaan sëlmalee mu fay takkusaan ji mu waroon a julli bu nappee sopp nañ mu baamuwaat timis kon mel na ne ñëpp bëgg nañ ñu baamuwaat timis yi ndax toftale am ndax timis day ñëw ginnaaw takkusaan te moom daal njëkk a julli timis moo tax ñu bëgg mu baamuwaat ko bu dee ilimaan day dagg julleem bu dee kenn kuy julli day dagg julleem ki du dagg julleem mooy maamum ndax ilimaan a ko jëy waaye bu sëlmalee ba fay tàkk sa ba noppi soppal bu baax niki noonu ilimaan bi comme dagg na julli jom julli jutugutu julli timis day fay tàkkusaan door a julli timis naka noonu bu fekkoon daal julli timis ba noppi nag door ko fàttaliku it dañuy bëgg bu fayee tàkkusaan ba noppi it fii ak waxtu timis jeexul fii ak fajar jotul fu mu ko fàttaliku bëgg nañ baamuwaat timis gi ndax toftale am sëñ Cheikh
jërëjëf sëriñ kii day laaj mu ne koo xam ni dafa tabax jàkka ci këram yàlla dogal mu génn àddina ndax ña koy donnu am nañ sañ-sañu màbbu jàkka ji
bu dee jàkka la jàkk nga xam ne du musalla waaw ñu xàjjale musalla jàkk musalla mooy bat daan ci kër gi def ko jullikaay nga xam ne moomeelu boroom jëmm si léeg-léeg gis ci ay taal ci liggéeyukaay wala yu mel noonu yooyu ay jullikaay lañu war di jàkk waaye nag su dee jàkk joo xam ne dañ ko tabax ba ubbi ko ñëpp nga xam ne bu dee ci kër gi it am na bunt bu ne ci mbedd mi boo xam ne saa bu julli jotee ku neex nga ñu julli si jàkk jooju bu ko tabaxee ba noppi ba jox ko nit ñi tàmbalee julli moom mi ko tabaxoon moom ñi ci des ñoo ci am léegi waqfu la sañitu koo jaay sañitu ko def nen moom ci boppam kon sañitu ko mabbu lu dul ne dañ koy defaraat su boo kon bu fi jógee la ñuy doon loolu bokku ci ndax waqfu kenn ko doon kon dañ koy bàyyi noonu nag di ci jaamu yàlla xanaa bu màgg te ñu defaral waaye toj ko ngir xëy na soxla barab ba loola nekkatul ci moomeelu kenn loolu nag mooy bu fekkee ne jàkka la yoo xam ne dañ ko tabax ci far anam goo xam ne ku ca bëgg a ñëw mën caa ñëw waaye bu dee jàkka yoo xam ne sa biir kër la nekk sa kër dong ñooñu julli loolu am musalla la waaye du jàkk ndax jàkk dëgg-dëgg li ko tudd day doon loo xam ne mbooleem nit nit alal yàlla dal la fu waaye aajowoo jaamu yàlla bu dikkee mën faa dugg dal su dee lu mel noonu la moom ba mu ca noppee ba jébbal ko nit ñi la ci yem ak ñëpp xanaa tuyaaba dem cee jëlee waaye ci moomeel moomu dugg bu faatoo kenn du ko miraas sëñ Cheikh
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen su fekkee dafa ànd ak imaam imaam bi juum ndax jigéen ji mën na ko sabal waaw ci mazhabu alimam Malik day ñoom dañuy wax ne xadis bi wax ne man naabahu shay'un fi salaatihi falyusabbih ñëpp ko bokk góor ñi ak jigéen ndax ar baat arab baat bi mu jëfandikoo ci alfaazul umum la bokk mooy man ñoom dañuy wax ne xadis bi wax ne ab tasbiixu lil rijaali wa tasfiiqu lin nisaa tekki wut ni ndigal la ci ñoom ñoom noonu lañu ko dégg dañuy wax ne kon ku jigéen ki ak ku góor ki ñëpp bu ñu ànd ak ilimaan bu imaam jamoojee subhanallah la ñu wax ñoom it dañuy dellu sax ci soxna Aïcha am na mbokk mu doon julli mu ñëw di ko laaj daa sàbbaal ne ko subhanallah donte ñi ñi wax ne jigéen du wax subhanallah wala day tàcc wala day fëggu dañuy wax ne kooka jigéen la mën naa dégg kàddoom waaye ci mazhab Maalik daal li ci mashhuur nekk luñ ci sukkandiku mooy góor ak jigéen ku ci dara jot ci julli li waral nga bëgg a yëglu subhanallah ngay wax
kii moom day laaj mu ne koo xam ne dafa faatu bàyyi fi jigéen ju mbokkal ndey ak bàyyi ak jigéen ju mbokkal ndey kepp kooku nan la ñuy séddalee alalam
waaw ñooñu day ci cosaan mbaaxoowuñoo jeexal alal ay cër lañ am bu fekkoon ne asaba am na la ca des ñu jël bu fekkee nag ne ñoom dong la alal ji dañ leen koy delloo bu kenn ku ne jëlee sa cër ba noppi la ca des dañ leen koy delloowaat moo tax loolu bu amoon alal ji ñeenti xaaj lañ koy def jox ki mbokkal ndey ak baay ñett yi jox ki mbokkal ndey dong benn
jërëjëf laaj bi ci topp nee na ndax maamum joo xam ne dafa dëkk ci kër goo xam ne moom jàkka ji ñoo den ndax mën naa julli ci biir këram googu nga xam ne du gis ilimaan bi day roy rek ci rajo yi jumaa ji wala rajo yi jàkka ji
waaw bu fekkee ne du jullit ajjuma de mën na koo def tolloole manis na koo def lu dul ajjuma nga ne ci kër fu tëjee di ànd ci jumaa ji wala jàkk ji waaye bu dee ajjuma dagal waaye buy ajjuma yëpp nag ki ko def julli na waxtu de waaye amul nga neelul mbooloo mooy tolloole boo ko defee joxe nga sa farata waaye attet ku julli yoo doom nga yor ndax demoo ca mbooloo nga neelul mbooloo ki dem ca mbooloo moo koy am
mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dañ koo raw ci julli timis ñu raw ko ci ñaari rakkaa nan lay fayee loolu ñu ko rawee
nga xam ne kon benn rakkaa la ànd ak imam kooka bu iliman salmale day jóg du kabbaraat ndax kabbar na ba noppi ndax bi mu sujootee sujootum ñaari bay siggi wax na allahu akbar allahu akbar jooju bu doon moom donga day jóg taxaw kon du kabbaraat ndax bu kabbaraatee yokk ay kabar day jóg rek jàng faatee ko saar ca kaw beral ko rukoo sujjóot ñaari sujjóot taaya ndax benn rakka la am nag ilimaan bii mooy ñaareelam te ko am ñaari rakka da ngay toog taaya bu taaya ba noppi jóg nag kabbar andi beneen rakka jàng ci faatee ko saar ndax mooy ñaareel rakka imaam bi njëkk a julli ginnaaw ilimaan mooy bu njëkk ilimaan jàng ci faatee ko saar bëral ko rukkoo sujjóot taayawaat xam daal du sësale ñaari rakkaa yi benn rakkaa bi mu ànd ak ilimaan bi ilimaan sëlmalee day julli yeneen ñaari rakkaa yi ko imam rawee waaye nag bu leen sësale faw mu doxalee taaya ci diggante nga xam ne day mel ni moom bokk seetloo julleem bi rakkaa bu mu sax bu ne taaya ndax bi mu ànd ak ilimaan taaya na bi mu amee beneen rakkaa ñaareelam taaya na bi mu amee ñetteel rakkaa ci la sëlmal taaya na noonu lay fay julli gi ci mos imam Malik seen Cheikh
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci jigéen muy ziyaari ji ay armeel ak ndax bu ziyaari ji armeel dana ci jële bàkkaar wala déet
waaw jigéen juy ziyaari armeel da ci masaayil yi nga xam ne borom xam-xam yàgg nañ cee wuute la waaye wér na ne moom bari luñ fay dem dagan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na laana allahu zawaraatil qubur yàlla rëbb na jigéen ñi nga xam ne dañuy bari lu ñuy dem ci armeel loolu nag am na ci borom xol ci dégg ne kon ki nekkul zawaara xanaa nekk zaira moom mën naa nekk waaye nag ci sartu wut na mel melokaan bi nga xam ne moom lañ soxla ci jigéen bi génn bu dee jullit bu jigéen ci muuru yu war a muur ci yaramam bu mu xeeñ gëtt yu xeeñ bu mu takk ay takkaay bu mu takk lu yëngu bu mu fa dem di yéexu mbaa muy xotti ay yére waaye yooyu yëpp bu ci lan naree am rek daganul ci moom muy dem ci armeel xëy na nag bu mu cëccoo yëpp kon te bëri wut lu mu koy def danga soo ko nangu ci wut bopp ndax zawaaraat la wax ñi bari lu ñu dem ci armeel ak lu mën a xew daal ñu bàyyi xel ne julli bu jigéen moom li tax ñi dem ci armeel bokk na ci ñaanal ne yooyu nekk ak waaru fa bu fekkee bu fa demee mu du fa waaroo jëru mu fay dem ndax kon bàkkaar la fa jële ndax bu fa melee melokaan wu dëgër dafa jële bàkkaar yi kon ki fay jariñu mooy nga dem fa ci anam bi ñu la sant te boo demee nga def fa lañ nga def loo waaru fa ñaanal ña fa tëdd loolu nag léeg-léeg mu xaw a jafe ñoo xam ne saa buñ tiimee ku ñu seen mbokk la day jooy jooy yoo xam ne dañ leen di yëkkati fam leen di yóbbu lu mel noonu nag ku mel noonu moom waru dem ci armée c'est monsieur
kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne day jaay am na ku ñëw jënd ci moom mu waroon koo delloo weccat far yàlla dogal koo ko dem te xamul ci moom benn jeexit xamul fu mu dëkk xamul fu mu nekk mu ne kon ndax kon mën naa jël weccat woowu
kooku de sëriñ Cheikh dañ koy jàppe rek àtte lu mu for la daanaka ginnaaw xam na ne am na ko fi ko ko moom bàyyi ko fi te xamut ci moom dara bu dee lu am solo na ko téye lu mat at di ko xamle ku ñëw mu laaj la ñi fay jënd si ndax fàttewoo foon fay jël bu at bi matee te gisut kenn ñëwut ñett yi lu mu ci def baax na bu ko neexee lekk ko bu ko neexee saraxe ko bu ko neexee saraxeel ko borom waaye lu ci mën a xew nag day yéene waale saa yu borom feeñee fayu ko ko mu fay kon bu ko lekkee dana yéene su borom feeñee mu fay ko bu ko saraxelee boppam noonu bu ko saraxelee waajo noonu xëy na nag gën a li gën bu xamut moom dara moom mu saraxeel ko waaja moo gën mu di ko saraxeel boppam mbaa mu di ko lekk ndax bu ko saraxelee moom fu mën a nekk insha allah tiyaaba yi dana jot ndax moo ko moom dana am te dana jot tiyaaba te kon loolu àtte for la bu fekkee nag amul solo ay wecco yu ndaw la bu toogee ñaari fan ñetti fan laaj bi muy ñëw kenn kenn de du moom rek mën na caa def loolu mën na ko lekk ci yéene jooju mën na koo saraxe ci yéene jooju
mbokk mi moom day laaj mu ne lan mooy àtteeg jigéen joo xam ne boroom këram da koo soxla mu gan mu gàntal ko mu bañ daal.
loolu day mbokk lu mat a moytu la lu mat a mat a moytu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna ci xuppe ci xupp yi méttee métti am na ci xadis bi wax ne saa bu góor wooyee soxnaam ngir soxla ko mu gàntu malaaka yi dañ koy fanaanee rëbbu ba bët set lenn rek moo tax mu sañ a gànt mooy ngànt mu wére di wére di goo xam ne mënta ànd ak jaxasoo mbaa mu am ngàntul sharia setut mu sañ naa gàntu ndax loolu lislaam ko sant waaye ay coona ay tàyyeel loolu wërta tax jigéen di boroom këram soxla ko muy gànt yéen ko islaam nee na ku ko def guddi googa malaaka yàlla ñu ngi la fanaanee rëbb dara bu malaaka nag xawut a xaj ci doomu aadama kon lu ma tax moytu la
laaj bi ci topp nee na lan mooy àtte koo xam ne day julli julli gu teew te fekk na am na am na bëri julli yu mu war a fay day julli takkusaan te moom am na tisbaar wala suba goo xam ne da koo rawoon julleegu waaw bu dee lu mel noonu de nga xam ne day julli tisbaar takkusaan te julleegu tisbaar maanaam wax wax takkusaan moo jot mu julli takkusaan te julli bu tisbaar julli takkusaan yu baaxul ndax tisbaar ak takkusaan day ñaari julli yu bokk wax ñaari julli yu bokk wax nag toftal leen waajib la charte la kon moom bu jullee takkusaan ba noppi julli tisbaar takkusaan di baaxul faw day fayaat day julliwaat takkusaan bu doon lu mel ne takkusaan ak timis nag moom itam toftalee dañuy xool ba xam genn julli la wala julli yu bari bu dee julli yu néew mooy juróomi julli jëm suuf bu timis jotoon tey mu amee borom benn julli wala ñaar wala ñett wala ñeent ba juróom kooku dañ koy sant ne ko na fay bor yi door a julli timis ji teew donte bu fayee bor yi balaa noppi timis ji waxtoom jàll loolu lañ ko sant bu doon julli yu bari nag nga xam ne ëpp na juróomi julli sopp nañ bu waxtu bi yaatoo mu njëkk a julli julli gi teew sopp nañ loolu waaye bu waxtu waxatee nag waajib lay doon day fay day julli julli gi teew door a fay jullee jàll loolu mooy bu fekkee ne ëpp na juróomi julli juróom benn julli juróom-ñaar loolu la amee ci bor am julli gu teew bu waxtu waxatee na na julli gi teew ngir bañ mu bokk ci bor yi bu noppee fay yooye bu yaatoo nag sopp nañ ko waaye bu ko neexoon it njëkkoon a julli yële it door a julli gi teew dara nekk
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na julli gee ñu di ko yeexe day seetlu ci bari ci nit ñi dañ naan gee yaatu na dañuy toog rek ba ay bu leen neexee ci guddi gi ñu julli ko waaw xam nga muxtaar moom njël benn muxtaar ak mujj muxtaar ñoo yam ci ne ku ci julli it def nga li la war ci amoo yenn daal doonte nag sëriñ bi noon na waalam bi ann afdala taati salaatuna fi awwalil awqaat julli yëpp julli ko ci bopp waxtu moo gën ba te yow demoo jàkka ji nga xam ne dañuy bëgg ñu négee fu waxtu bi tàbbee rek nga julli ci bopp waxtu yi moo gën waaye nag biir muxtaar foofu julli baax muxtaaram jay nag fi mu ne ni ñu toll nii dana dem ba onze heures moins quart muy sulus guddi nekk bi ba onze heures mooy quart moom foo fi julli gee julli nga ci waxtu woo xam ne amul benn ngànt bu xase weesu nag ngànt moo tax moo war a tax ba julli masalan tey ku nekk ba onze heures jot wala onze heures demi mu door fi julli gee te amul benn ngànt am na bàkkaar ca la nga julli na ci waxtu muy daruri waaye waxtu yu julli ku am ngànt rek ci wala julli ku doon nelaw ku ko fàtte woon ku amoon day ngànt bu mënta julli waaye yow tàyyeel wala toog rek di xaar ne daa nit bu féex wala gën a gën a gën a gën a sawar wóor sa tax na nga nit ba muxtaar mi jeex na door bi waaye féeg muxtaar mi jeex gun nag foofu julli baax na muxtaar mi nag du weesu fi ne nii onser mooy kar
bokkuñ moom day laaj mu ne muxtaaru mu fajar ak li ñuy tuddee daruri fajar kan day tàmbali
muxtaarum fajar mi ngi tàmbali bu fajar ci xare maanaam daal waxtu wi ñuy noddu wax ne asalaatu xayru min an naw foofu la muxtaaram tàmbulee ba mu leer ba mu leer mooy boo newoon ci néeg génn taxaw ci ëtt bi koo dànd ñaar téeméeri mètre xàmmee ko xam ne diw foofu la muxtaaram yi la fa tàmbalee ba jant bi waaj a fenk mooy baroor yi loolu wax yenn borom xam am na ñoo xam ne dañoo wax ne suba amul baroor yi muxtaar kese la ñu wax loolu dañuy wax ne kon bu fajar xaree rek la fa tàmbalee ba jant bi di waaja fenk lépp ci muxtaar la moom waaye nag day mel ne li gën a lëng mooy am na muxtaar am na daruri yi moom la sëriñ bi doon wax ne asubxu waqtuha lada al axbaari min saadiqi al fajri ila al isfaari fajar day ñaar daa am fajar al fajrul kaazib mooy waxtu yi ñuy woote naan jóg leen waaj nga xam ne mën nga caa xët bi waaye mënoo caa julli suba alfajaru sadiq nag mooy fajar bi nga xam ne dañ ci julli suba waaye ku ca xët la nga fay gis da nga fay ndax amoo ko ndax fekk na fajar jot fajar jooju nga xam ne moom jamono yu toll moom li gën a jàppande mooy nga déglu jàkka yi ñu noonu saa bu ñu noddee wala nga xam heure yi di ko xool ci sa montar yi ñu wax ne ci la fajar tàbbi bu jotee nga xam ne waxtu fajar tàbbi ne mooy moxtaar la fa tàmbalee nag ba ak ba muy leer nga xam ne boo génnee koo seen xàmmee ko ndax ñaare bu ñu door noddu boo génn mën nga seen jëm waaye doo xàmmee kum doon ndax day lëndëm bu leeree nag foofu la mu tàmbee
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne koo xam ne day julli waaye xàmmeewul farata yi xàmmeewul sunna yi mu ne ndax ak julleem dana wér loolu de sëriñ bi jàngale woon na ci andi ci ay leeral ci tasawudu sixaar nett li ci wax imaam awf yi ak wax yeneen i borom xam-xam imaam awf moom moo xaw a taral foofu wax ne kuy julli wala ngay jàpp wala ngay sangu te xam ne woo farata xam ne woo sunna la nga def baaxut boo ci jaamu yàlla jaamu yàlla du nekk noonu te ñu nett leeral bu noppi wax na ne am na yeneen i borom xam-xam wax ne nag bu fekkee ne mën na jëf ji ni mu waree. jàppale ni ñu war a jàppee sangoo ni ñu war a sangoo jullee ni ñu war a jullee waaye nag xam ne mu farataay sunna yi jëf ja baax na ci la gën a wér ci wax loolu nag day mel ne mooy almutamad ci mazhab bi mooy nit ki su fekkee daal góorgóorlu na ba xam ne ñu jullee mu def waaye nag xam ne wut du cee fat ci sunna waaye nag li ñu santaane julli yépp def na ko dañuy jàpp ne farata ji ko yàlla santoon def na ko wàcc na ko kenn du ko am loo waaye nag war naa def yitte nag ci xam ne ndax sëriñ bi mu leer na ba noppi daa wax ci mu jóge ne moom li mu wax moom ne képp ku réeré ay faratante laaju ko tooñ na bopp
kii moom day laaj ne laaye ji daal la bëgg ñu leeral ko lu ci suñu borom bi jubloo wax ni wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha
laaye jooju xam nga fa mu tàmbulee mu ne qul du allaha aw du rahmaana ayyama tad'u falahu al-asmaa'ul husnaa dañoo dégg ñoom yéefar yi mushriku Makka yónent bi salaam bi ñaan léeg-léeg mu ne yaa rahmaan léeg-léeg mu ne yaa allah ñu ne xool leen Muhammad rek moom mi ngi naan yàlla kenn la pare di jaamu ay yàlla yu bokkul maanaam ñoom dañuy jàpp ne allah yàlla la rahmaan di naan yàlla suñu boobu ne ko nag qul du allaha aw du rahmaana ayyama tad'u falahu al-asmaa'ul husnaa yàlla daa bari ay tur yëpp rafet bu la ci neex man nga ko way way kenn ci la ñoom liñ soog nekkul daan de ñoom buñ ko mosaan dégg nag dañ jéem wala di sa di wax lu ñaaw saaga mu ne ko nag booy jullee ci bul wax ca kaw ba yéefar bi la dégg waaye nag bu ko bu ko déy ba sa sa sa gaa yi war cee jariñu duñ ko déy na nekk bayna bayna wala tajar bi salaati waaye wala tuxaafit biha kon wabu taxi bayna dalika sabila ñu ne saxaaba yi ci nekk gëm li ngay wax moom na nga yëkkati sa kàddu bañ dégg ko waaye nag ñi ci bitti di ay yéefar nga xam ne bu ñu ko déggee di wax lu ñaaw di wax yàlla lu ñaaw ñoom moom jërul boo koy àggale ci ñoom salaatu jooju nag firee nañ ko julli firee nañ ko ñaan bu dee julli la jàng yi mu jàng alxuraan ci biir julli ci jublu bu dee ñaan nag ñaan gi mu ñaan yàlla ñu tudd ay turam la ci jublu lépp borom xam tafsir wax na li ci nekk firi dana ko firi
kii moom day laaj mu ne ndax jëfandikoo cuuraay ci bëccëgu weeru koor mën naa yàq koor
waaw bu dee cuuraay loo xam ne da am saxaar day mu taxaw saxaar si du ko dugg nga xam ne moo sabab lu saxaar si dugg ko saxaar suus lay yàq koor ni ki noonu saxaaru suus dañuy tuddi buxaar nga xam ne kuy togg saxaar si génne ci cin li saxaar suuf yi koo xam ne moo sabablu mu dugg ko kooram day yàqu ak saxaru cigarette ci naankati saxar yi ñetti saxar yooyu dañuy wax ne yàqu koor ndax day takayuf day jeexital ci ak xiif saxar yi jéggale mooy saxar matt ak këri dañuy wax ne yooyu moom donte nit ki moo jublu mu dugg koy du yàqu koor waaye cuuraay moom bu mënta ñàkk nañ koy daal guddi mbaa boog bu mu doon cuuraay luy sax naka noonu jigéen ñi togg yi nañu moytu tiim cin li di anam goo xam ne xam nañ ne faw saxar si cóola ju dugg leen bu dee naan naan saxar nag moom dëgganut aslan rawatina ko moroom daan dikki nga xam ne cee bool di yàq ko
jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax la ñuy tuddee doom ji juddoowul ci yoon ndax am na barab boo xam ne mën na faa doon kañ wax ne mooy baayam loolu sax duñ ko askanal ci bàyyam ci sharia
waaw li ñu xam ci sharia rek te mooy mazhabu imam malik te it nag mooy mazhabu ñëpp al ayma al arbaat ñëpp mooy seen mazhab mooy doomi njaalo du doon ki kiñ ne mooy bàyyam ci ci jaxasoog ndeyam waaye ci sharia doomi njaalo amul bàyyi ci ndeyam lañ koy askan bu dee fii sant ndeyam lañ koy jox kenn du ko jox sant genn góor amul genn góor bu mu bokkali ndeyam la bokkal ak ñu ndeyam góor moo tax mu doon lu matam moytu sabab lu mel noonu kooku ndeyam rek lay doon nante ibnu islam moo wax ne al walad lil firash walil ahli al hajar am beneen xadis bu wax ne ayyuma rajulin aahara bi xurratin aw amatin fal waladu waladu zina laa yaritu wala yoon képp koo xam dafa njaaloo ak jigéen moo xam ak gor la moo xam ab jaam la njaaloo ba mu am doom doom jooju doomi njaaloo la du doonu góor gi góor gi du ko doon kon doom njaaloo du doon lu ma ta moytu nag léeg-léeg forcé wax ne ki ne mu amal ndeyam nee na moo ko jur gis nga jigéen joo xam ne bi muy am doom amul borom kër gépp góor gu ne maa jur doom bi lislaam day jàpp ne saxal nga ne njaaloo nga ndaw si waaye gëmut li nga wax maanaam du jàpp ne yaa jur doom bi moom doom bi doom bi njaaloo la am bàyyi ci sharia waaye nag dana la jàpp li nga wax kon jàpp ne la ku saxal ne dafa njaaloo kon war nañ ko àtte àtte ku njaaloo am na nag lu ñuy wax istilxaq maanaam yéegal nit ci askan loolu téer yi danañ ko wax waaye dañuy wax ne ki ñuy istilxaq bu mu doon maqtuuxul nasab bu mu doon maaluumul nasab maanaam kuñ xam ne amutu askan jigéen joo xam ne li muy am doom amul borom kër doom jooju maqtuuxul nasab ko képp ku ne maa ko jur dangaa saxal na njaaloo ngay waaye duñ duñ duñ jàpp li wax maaluumul nasab mooy koo xam ne diwi bàyyam dañoo takk ndeyam mu juddu kooku it keneen ku ne moo ko jur da ngaa dañ la da ngaa xas nit dañ la caw yar yoon waaye am na bàyyi waaye nag li ñuy tuddee majhulu xaal majhulu nasab benn waaye bu ñëw ci dëkk bi kenn xamu ko fi dañ koo gis rek génn góor daal damay bàyyi kooku danañ ko nangu ci ay charte mooy bu fekkee ne waa ji naan maay bàyyi bu amul alal ju bari ju tax te bàyyi amul it ak ci geño nga xam ne dañuy jàpp ne dañ koy tuumaal ne daa bëgg a doon alal ji moo tax mu ne mooy bàyyam waaye waa ji amul alal benn wala am na ay doom yu ko mën a doon nga xam ne bu ci doon doon nit la muy doon du bari ku mel noonu la ñu wax ne mën nañ ko istishaq ndax dañuy jàpp ne mën naa am daa am fu mu demoon am ko ko takk fa soxna fa doom waaye na fekk muy majhuulun nasab waaye kii nga xam ne moom fii la dëkk ñëpp xam ne bi ko ndeyam bi jur boobu ndeyam amul borom kër képp ku ñëw ne mooy bàyyam dangaa saxal ne mooy nga yàlla dañ laa war a àtte waaye doom ji moom kenn du ko yëgal ci yow kenn du ko jox saw sant yaa ngi moom da nga doonante loolu mooy li borom xam nga xam sëñ Cheikh ci masala moom
jërëjëf ci leeral yi laaj bi ci toppam nee na ndax koo xam ni dafa fekk imam boo xam ni dafa xaw a dëng imam bu xaw a kaccoore daal ku julli ci ginnaawam ndax yow sag julli dina wér
xaw ñu xool kàccoor yi fu mu jëm li ñuy tudde faasiq bi jaari xam mooy imam joo xam ne day jubali day naanum ñoll wala day ruur wala day jëllum moomut wala yu mel noonu daal kooku dañuy wax ne matul ilimaan dëgg dëgg waaye nag bu jiitewul julli ga baax bu kàccoor bi jëmul ci julli gi parce que mën naa doon ku jubati waaye bu julli jotee dana jàpp jàng li war a jàng matal rukkoo yi matal sàkk yëpp kooku kum julleem baax na kum jiite it julli ga baax waaye bu dee fis ko goo xam ne nag kàccoor goo xam ne ci julli gi la jëm masala waaye la joo xam ne mën naa jiite fii ni ñu tëgg jàpp wala boog buy julli sàrt yi du ko matal bu bu bu rukkooyee du sujj dafay burlee rek dem sujjoon nga xam ne day xëtt ay farata wala ay ponk ci julli gi kooku mu faasiq la boo xam ne matul iman képp ku mu julli sa julli baaxul kon bu dee faasiq boo xam ne day feeñal kàccoo gi ci biir julli gi kooku matul iman kenn roy ci moom waaye bu dee fisq boo xam ne nag feneen la ko jëmee waaye bu julli jotee moom dana matal sart yi matal tonk yi daf li mu war a def xëy na di ko tànn iman jaaduwut ndax matul roy waay waaye nag bu ngeen dajoon fenn mu jiite la ak julli julli ko baax na kenn du la wax ne la baamul julli gi ngir waa ji naan katub ñàll la wala ab ruurkat la kenn du wax
kii moom day laaj mu ne koo xam ne day liggéey guddi waaye barab ba muy liggéey nag dafa bari yëngutu ba xëy na ñi mu dendal suñu bëggee nelaw wala ñu bëgg a dallu mën naa am gàllankoor mu ne ndax kiy liggéey ci barab boobu dana ci am bakkaar ci loolu wala déet waaw xam nga sëriñ Cheikh dafa mel ne liggéeyukaay yi nga xam ne day am am réer nga xam ne kenn mënta dëkk ci wet dañu jaadu ñu di ko def foo xam ne fële ay nit fa dëkk yu mel noonu daa mel ne daa war a am ay barab bopp nga xam ne bu nit ñi dafa liggéey ku fa dem moom da nga xam ne liggéeyukaay la ku fa tëdd ku fa bëgg a tëdd nelaw yaa dem bëgg a nelaw foo xam ne du nelawukaay waaye dem ba ci biir këri nit ñi nag nga am fa machine yoo xam ne day riir bu guddee kenn du dégg loolu ku ko def yaa ngi toll te lor dëkkandoo nag lu ma tax moytu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñi bi ñëw na ay yoon di ma dégg dëkkandoo ba ma jàpp ne bis dana ñëw mu ne ma dana doon te wax na ne gëmul yàlla ñett yoon la ko wax ñu ne ko kan de wax yoon ci yàlla mu ne ki nga xam ne dëkkandoom du wóolu aw ayam waxtu wël daal mu ngi seenu ay bu bàyyi koo ci moo ñëw ci moom te it yu mel noonu tooñ la kon yu mel noonu lu ci gën fañ koy def di ko fa installé bu mu doon foo xam ne dëkku ay nit ñi ndax bu ko defee ma ngay lor nit ñi te ak ca dëkkandoo gis na loolu fakar yàlla suñu borom bu ma tamoy borom
kii moom day laaj mu ne ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mos naa génne azaka ci dundam
ci li ñu xam day yonente bi salaam mës ta génne azaka ndax azaka waru ci njëlbeenam yorutoon dara sallallahu alayhi wa sallam daa toog ay fan nee na ñaar la ñuy dundee ndox ak tànnam ay fan ndox ak tànnam la ñuy lekk ci kër waaye bi yàlla ubbee lislaam tasaaroo fu ne at yi di ko jógee lu ne it yonent bi islaam mësta dajale nisaab denc ko at dañuy wax ne kaana yu'ti ataa man laa yaxsha al faqr mu ñëw da koy jox bi dalil bi muy génn àdduna am na mbubu mbeñam moo xam ne ab yahud la ko tayle ndax dafa leboon fanweeri saa yi dugub jum doon dundale waa kër da ko fa lebo kon alal ju dikk doon na bari ci mujj gi waaye lenn lu mu ciy denc bu mat ak amul da koy joxe kon asaka waru ko sallallahu alayhi wa sallam
kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy naan xeeti naan yi nga xam ne xamul li mu ko defaree lan moo ko composé
waaw liy cosaan ci ay naan de mooy ne yooyu yu naa yu yu baax la lu dul dañoo am firnde ci ne baaxul masal tey bu leeree ne du luy nàndal luy màndal du sobe du luy lore suba nit ki mën na ko jëfandikoo bu ko juboo waaye nag yonent bi salaam waxoon na lu am solo inna alxalaala bayin wa inna alxaraama bayin wa baynahuma umurun mushtabihat léeg-léegi nag am lënt ndax li gën a bari sax ci naandoy moom danañ ci bind yi ko composé soo ko xoolee nag gis ca alcool sobe la kenn du ko naan lu mu néew néew sobe kon naan ko du dagane ndax sàngara xaliluhu fa kasiru xaram waaye boo ko xoolee nag yooyu ñu wax ne lenn lu ñuy tere nekku ci rafetal jot ci ne nañ ko waxee noonu demee kon daal ak naan boo xam ne yow xam nga ne du sobe du luy màndal te it lor du amut lor ci wér-gu-yaramu nit nit ki su ko bëggee mën na ko jëfandikoo loolu mooy cosaan loo ñaaw njort nag bàyyi ko ndax daa maa yaribu ilaa maa laa yaribu loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam looy sikk sàkka wóolu boo baax na wala baaxul ndax xëy na fa mu jógee bàyyi ko te dem ci lu wóolu
kii moom day laaj mu ne ndax ki ñuy wax may sara jotoon naa dugg ci lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw may sara daa mel ne mooy kooku soxna Xadija yabaloon bi muy jox yonent yàlla Muhammad alayhi salaam mu yaxantu ci alalam moom la ko boole loon may sara moomu moo génn ko ci yonent bi cib tukki ne xam na ne kii daal du nit du nit kese gis na ci ay màndarga yoo xam ne bi mu ko nettalee soxna Xadija moo waral soxna Xadija dafa pexe ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël ko muy soxna ci siiraat taarix ne nettali wuñ ñu ndax fekkee na biaxta ndax loolu jiitu nañu ko yónni ndax fekkee na biaxta ba dugg ci lislaam wala déet donte nag am nañu koy limaale ci saxaaba yi ngir xëy na jàpp ne ci la bokk ndax ginnaaw gis na loolu njëkk na ko gis ba wax ko soxna Xadija bu lislaam wootee tam fekk ko fa dal ko waaye nag amul benn firnde ju leer moom ju wér ne may dara nekk na fi ba yonent yàlla Muhammad alayhi salaam yàlla yónni ko mu dugg ci diine
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte bi liggéey ci assurance yi nga xam ne ci wàllu assurance la yëngatu ak lan mooy àtte bi ca adhéré maanaam bi ca bokk
waaw assurance de ay façon am na bu dee assurance boo xam ne tijaar yi la bu yaxantu la nga xam ne ay nit ñoo ubbi ab société di wut xaalis di laaj nit ñi xaalis ñuy cotiser ngir ku ci am gàllankoor ñu fajal la assurance boobu dëgg na ndax carte la riba la xarar la lépp am na ndax faw société bi perte wala client bi ndax dañ lay wax weer wu jot wala at mu ne nga joxe nangam saa bu yàlla dogalee nga am nattu ñu fay ñu fay la nit ki mën nay cotiser nangami at ba xëy génn àdduna bu fekkee oto la la ko defoon oto ba du ma sa paat defut accident buy war a loolu lam joxe ci alal joxewu koon ngir yàlla te juutal tuuti kon ñàkk na ko lool kat wala nit ki dem assuré wu fay benn at wala ñaari at loo xam ne la mu fay lépp mën naa motul téeméeri junni mu am accident boo xam ne ñetti million wala ñeent lañ ci war a fay bu société bi fayee day perte boobu ndax lim jot lam dugal moo ko ëpp bi ci desit saa bu société bi joxee waa ji lu ëpp li ko joxoon am na riba ziya am na riba riba ribal fadli bu tolloog moom am na riba nasiya kon mënta mucc ci riba mënta mucc ci xarar mënta mucc ci ximaar faaw am ku perte moo tax borom ko dañuy wax ne daganut assurance yooyu allahumma lu mel ne loo xam ne dañ la caa géttan comme fii ci Sénégal masalan kenn mënu fa dawal oto te assuré wu faaw ñu dañ laa ga ci ne faaw nga wutul ko assurance su boobaa na la mett ci saxol nga xam ne li ngay def neexu la ñàkk pexe tax di ko def waa ji la ko sant forcé la ci mooy gàddu bàkkaar waaye doo ci am bàkkaar ndax ñàkk pexe moo tax nga dugg ci am na nag tamin taawun yi assurance yoo xam ne day mel ne am mbooloo mu bokk ci fu ñuy liggéeyee nekkat ñun dañoo bëgg jàppale ni ci suñu biir dañoo bëgg weeru dee wala at mu ne ko joxe naan nangam bii nag dañ ko fi teg ku amul wéradi ñu dimbale la ci loxo yi loolu ñaare ki koy joxe bëggu ca jota moom mi ngi joxe waaye day ñaan yàlla yàlla mu ngi ko ajowoo ndax wéradi tax ñu jox ko te bëggut a wéradi kooku day mel ne ku génne alalam di ci coowar ñu yàlla loolu moom lu baax la ndax day dugg ci biir taawunu alal birri wa taqwa bu dee lu mel noonu la moom nga xam ne yow li nga joxe da nga koo joxe ngir yàlla saa boo la yàlla nattoo nag ba nga soxla ndimbal yëpp ñu dimbale la ci waaye yow soxla woo ko seen woo ko loolu bokkut ak assurance nga xam ne kee moom daa bëgg bis bu amee problème noppul kon lim joxe joxewu ko ngir yàlla ki ko koy laaj it laaju ko ngir yàlla moo tax assurance boobu dagan bu dee assurance taamin taawun daal dagan waaye bu dee tijaar yi dagan ku ci dugg daal na fekk ñàkk pexe doo ca su boobaa na ko naqare ci xolam ña ko ko teg ñooy gàddu bàkkaar ba seen si
kii moom day laaj mu ne lan mooy àttal koo xam ne dafa fàtte julli gee waaye bi mu koy fàttaliku dem na ba ca suba sa ba julli timis ba noppi door a fàttaliku ne moom démb kat julli wutoon gee
kooku loolu ba tey day dugg ci li ñu waxoon ne julli yu faat yu néew la na fay gee jëm julli wutoon te baamuwaat timis ci fekkee waxtoon jàll ndax julli bu teewee ak julli bu teewee te ak julli bu teewee nga julli ko fekk am nga genn julli wala ñaar wala ñett wala ñeenti wala juróom sa ginnaaw yooyu julli ko dañuy bëgg nga fay julli yooya boo noppee nag baamuwaat baamuwaat gi teew sopp nañ doon lu ko wala sax dañ ko sopp insha allah
jërëjëf sëriñ bi mbokk mi day laaj mu ne bu yàlla dogalee nit takk jigéen góor gi nag bëgg naa yóbbu soxna si ca dëkk ba mu dëkk ngir mu dëkk ak baayam waaye waajur yi jigéen ji ne ko doo ko yóbbu foofu doo ko yóbbu ci dëkk àll ba nga xam fa la say waajur dëkk mu ne loolu ba amee kon ana lu ñuy def
waaw xam nga soxna moom nit bu ko xasee takk nag mooy kilifa nit bu takkee soxna mooy kilifa sañ na koo yóbbu fu mu nekk fu ne di ko dëkk te mën faa dëkk ak moom mën na faa yóbbu sañ na faa yóbbu ay ay goroom amuñ sañ-sañu ne ko soxna si doo ko yóbbu xanaa dañ ko koy may de mën nañ ko sartul ne ko ah mën nañ la may soxna si de waaye da nga koy bàyyi fi bu nangoo nag loolu moom al muslimuna ala shurutihi boobaa dañ koy gétan ci mu tënku ci sart bi ndax moo ko moo ko sax moo ko nangu waaye bu fekkee ne dañ koo may ci waxuñ ko dara ki ñu xas may soxna boroom këram mooy kilifa su nee dama ko bëgg a yóbbu dañ ko war a jox mu yóbbu xanaa mu di ko yóbbu foo xam ne moo yées fuuf fa mu dëkkoon te it dëppawut ak mbiram dañuy wax ne jigéen da nga koy dëkkal foo xam ne munaasib la ci xaalam sa kem kàttan bu ci loolu nekkee nag moom ay way juróom amul sañ-sañ moom jigéen ji ne borom kër bi doo ko yëpp yëpp koy bàyyi loolu daal ku ko bëgg a def ba ngay mayee sa doom ci nga koy sartal waaye saa yoo mayee doom sartoo ne day sëy sartoo ne day toog du sëy boroom këram bëgg mu sëy sañ na ko yóbbu fu mu bëgg yóbbu
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy jënd deret ci docteur yi
sëriñ Cheikh deret sobe la rawati deret yoo xam ne ab gaañu-gaañu moo ko génne mooy deret yooyu sobe la sobe nag kenn du ko jaay moo tax dañuy wax ne lor moo tax maye deret dagan ngir dañ koy dimbandikoo di ci faj ay nit waaye nag kenn du ko jaay suñ ko jaayee njëg dëgganut ki koy jaay lim def dëgganut ka ko jënd la def dëgganut deret sobe la sobe kenn du ko jaay deret ci nit la jógee bu dee deret nit la nit kenn du jaay lu bokk ci moom yàllaa ko warmal warma joo xam ne lenn lu bokk ci moom rek di sëy sëy su ko jaay jaay ko dëgganut ba ci kawaram jaay ko dëgganut
kii moom day laaj mu ne li sunu borom tabaraka wa taala wax ne maa kaana li nabiyin an yaxul wa man yaxlul yati bima xalla yowma alqiyaama mu ne loolu lu muy teg loolu de li ci borom xam-xami tafsir wax dañ ne ci xaswatu Uhud yaakaar naa dafa amoon am mbalaan mu gisul te bokkoon ci màng ma am nag ci gaañe ñu naan mbaa du yontuwee ko jël ci la alxuraan wàcc ne ab yonent jaaduwul ci moom muy def xulul ñu jàng an yaxul la mooy muy sàcc ci am man wala an yuxal la mooy ñu di ko jiiñ mu jël ci man dara dagul ci ndax ku def loolu bu yomal xaamee la nga jëloon masalan tey buñ jihaadee ba nopp noon yi seen alal dañ amoon dañ koy jël dajale ko am na noonu lislaam santaane noonu lañ koy séddale léegi nag njëkk ñu koy séddale am ku ñëw jël ci dara denc loolu la ñuy tuddee xuloo mooy sàcc ci am man muñ séddale bi loolu yëpp islam nee na ku ko def alfaana ko wax ne ku ko def bu yomal xaamee dañ lay teewal teewal la nga sàcc mu nekk aw gàngal ci yow ñëpp xam ne defoon nga ñaaw te fu toll nii mu ne nag loolu jaadu ab yonent di ko def kon li ngeen wax lu ñaaw la wala boog jaaduwul ñu di ko jiiñ ab yonent ndax ku ko def rek yomal xamee sa borom dana ñëw te wala ñu wan la
mbokk mi day laaj mu ne lu sunu borom tabaraka wa taala wax ne man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikail mu ne loolu lu muy teg
loolu yi dellu ci boroom xam-xam tafsir wax mooy dañ ne yahood yi dañuy wax ne ñoom jibril seen noona mikaayil daal nee na mooy seen xarit bi suñu boroom nag nee na ku noonu jibril noonu nga malaaka yëpp noonu nga yàlla noonu nga ab yonent maanaam ñooñu moom deesu ci foog jël ñenn bàyyi ñenn kon li yahood yi wax wane ne ne li ñu wax nekkul lu dëgg dañuy noonu yàlla ak yonent te yàlla nag ñooñu waajal leen ba léegi sabar leen dëkkal
jërëjëf sëriñ bi mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne dafa ñëw ci jullikaay bi fekk imaam bi di sujjóot ci rakka bu njëkk bi bi imaam bi sëlmalee mu ànd ak moom sëlmal
maanaam nga xam ne moom benn rakka la ànd ak imaam wala boog sax ca ci ci ci ci sujjóot bi la ñëwee amut ak ilimaan lu mat ab rakka bu fekkee loolu la bëgg a wax
waaw loolu bëgg a wax moo di ne julliwut ndax bu fekkee ne amut lu mat ab rakka bu iliman salami daa war a jóg julli bu fekkoon daa dese ab rakka it bu iliman salami daa war a jóg fay kon bu fekkee daa sëlmal ci njuumte fàttaliku ci saasa day jóg àggal li mu war a def bu na koy sujjóot ba'da salaam bu fekkee nag moo ko tey wala tëyu ko waaye sëlmal na lu yàgg door ko fàttaliku génn na jàkka gi julli ko yàqu na day julli waat
laaj bi ci topp nee na lan moo gën a wér ci bayit wi Sëriñ Tuubaa wax ne lakin unaadi kullal ibaadi wala kullal bilaadi kullal ibaadi ak kullal bilaadi lay laaj ban moo ci gën a wér dafa mel ne nag li ëpp ci mutuur yi ñu gis fii moom mbokk yi yëngu ci wàllu boobu moom kullal ibaadi lañ gis ne moo ci nekk lakin unaadi kullal ibaadi xëy na bu amee fu ñu wax bilaadi mën naa am waaye yi nga xam ne xëy na dañuy jàpp ay delluwaay moom kullal ibaadi moo ci nekk
laaj bu ci topp nee na lan mooy àttab imaam boo xam ne dafa xutba ci ajjuma ba noppi yàlla dogal mu toj la njàppam toj
bu fa ab jàppukaay soriwut nañ ko nekk mu dem jàpp ñëw jiite leen bu jàppukaay ba soree nag nañ wut keneen mu wutu ilimaan jiite julli waaye nag duñ xutbuwaat ni ki nga xam ne bu julliwoon bu xutboon ba noppi am ngànt faatu ba wéradi goo xam ne mënut a jul dal ko it keneen nañ ñëw ak ak julli waaye nag duñ baamu xutba
jërëjëf Serigne Mbacke kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb leb ci banque yi
banque yi nga xam ne day jëfandikoo riba day leb ci ci lu dul lor daganu lor nag ni ko boroom xam-xam di misaale dañuy wax ne fi nit àgg sañ a lekk medd bu fa àggee ci àdduna mën a lekk ci bàq mooy ne am nga soxla soo xam ne bu fa juwul boo tuwul sa bakkan mën na ca des wala nga ñàkk ci ab cër wala yu demee noonu te gisoo kenn ku la lebal banque rek ci sës sañ ngaa dem la banque mu tegal la intérêt moom banque moom mooy gàddu bàkkaar bi wala ñoom waa banque ba waaye yow ñàkk pexe moo la ci dugal loolu nag daroora la moo tax dañuy wax daroora ak ak xaajo xaajut li xaajo bokkul léegi ñoo xam ne na la dañuy yaxantu waaye lu mel ne ay xew-xew ñëw ñu bëgg seen yaxantu gën a bari ñu ne dañu bëgg a leb ci banque loolu aajo la waaye du daroora darura mooy loo xam ne bu amul rek am lu mu man am lu am lu am lu mu wàññi ci yow foofa lañ wax ne ku fa àgg te amoo fenn fenn foo mën a lebee sañ ngaa leb ci banque bu baax waa waa banque bu ñuy gàddu bakkaar bu dul loolu nag alal riba la te alal riba day dindi barke ci ci alal lu mat a moytul
mbokk mi day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne da doon sangu far yàlla dogal ndox mi jaare ci noppam ba àgg ci biiram waaye nag tayu ko
bu fekkee daa jubloo bu wooree kooku yàqu na ci mazhabu Malik bunt yi ne ci nit moo xam nopp la moo xam bakkan la moo xam ay gët la lépp lu fi jaar ba àgg ci boli day dog koor loolu la ñuy wax lépp lu fi jaar ba àgg ci day dog koor
laaj bi ci topp nee na lan mooy àttab koo xam ne dafa fase soxnaam te fekk soxna si toll ab diggante bi soxna si bëggee dellu siwaat mu sàkku ci moom mu bind leetar buy wane ne doom ji kat juguwul ci moom ndax kon su boobaa doom jooju mën naa donn borom këru yaayam jooju nga xam ne dafa lànk ne juddu bàyyi ko ci moom
xam nga sëriñ Cheikh diw doom ku jur doom yàlla ko sariya moo koy wax ginnaaw soxnaam mu toll ab diggante ne ci ak buumam bu amee doom moom góor gi moo yor doom binduloo ko mu bind ne bindal ne juruma doom ji mu door mu door laa jëlaat du tax doom ji ñàkk nekk doomam loolu xam li tax mu ñu waatoo te fekk day fekk liaan balaa am laablu day am soxna si toog na ab diggante boo xam ne borom këram jotuwut ak moom ba mu gis baax mu jàpp xam ni ëmbut kooka bu amee doom mën naa waatoo moom di dem ci kanamu yoon góor gi waat ne juruma doom bi ñeenti yoon lay seere ci yàlla ne juruma doom bi daan ne bu fekkee ne moo ko jur yàlla na rëbbum yàlla wàcc ci kaw soxna si waat seere ñeenti yoon ne waxut dëgg moo jur doom bi bu fekkee ne jur doom ji yàlla na merum yàlla wàcc ci kaw moom soxna si boobaa nag dañ leen tàggale ñoom ñaar duñ duñ ci duñ ca xadd kenn dañ leen bàyyi yàlla waatoo nañu bàyyi leen yàlla foofu rek la ñuy wax ne doom ji dee su ko yéegal ci góor waaye bu loolu amul doom ji judd ci ak buum ci anam bii ñu wax nii góor gi mooy bàyyam mu señaloo ko ak mu ñàkk koo señaloo bu liaan amul ci fi mu war a jaar mu jaar ko day jàpp doomam moo tax kenn suñ te wax am soxnaam am doom rek mën a jur mu doom loolu boo ko defee xasuf la bu charia taxawee dañ la caw juróom-ñett fukki at ndax da nga yàq dërëb nit te loolu lislaam da koy tere da ko ñaawlu lool.
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax jàng alquran wala jàng lu mel ne xasaayid ci ay rajo ci xew-xew diine yi ndax loolu dañuy jàpp ne day dugg ci biir ne kuy kuy tudd yàlla ci barab boo xam leer na ko ne amul gisal mu jàng ci kaw moo gën mu koy jàng nag
waaw xam naa bu dee barab yoo xam ne day lor néewut ci nga xam ne dafa nekk ñëpp dañ faa ñëw ngir déglu si loola loola kon jóg jàng ci kaw nit ñi déglu di topp njàng mi di ci jariñu loolu tuyaaba la waaye nag bu dee koo xam ne dafa am ñu fa nekk ñoo xam ne mën naa am kàddu gu xumb gi lor leen loolu mën naa moytu ndax yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci biir jàkkaam di jànti karam ay saxaaba da ci biir jàkka ji ñenn ñu nekk taxaw fenn di naafila di jul di jàng ci kaw dafa génn ne leen wàcce leen seen kàddu kenn ku ne ci yéen day déyaleeg boroomam bu kenn lor kenn nga xam ne lu mel noonu nga xam ne benn boo fa yëkkatee kàddu ci anam goo xam ne keneen a ngi doon jaamu yàlla waaye danga koy jaxase bëri taxaw lu muy def wala tooñ la bu dee ku wéri di koo xam ne ak dal la laaj waaye kàddu gu kawe gi tax na ma ngay loru loolu it mën naa mooy waaye bu dee barab boo xam ne nag ñu fa teew ñoom ñëpp loolu moo tax ñëw fa ba koo déglu si di ko jàng ci kaw ñëpp di ñu mën a ñu mën a jàng ànd ci ñu mën si jàng di déglu boobaa nag dara nekk waaye faaw ñu xàjjale ñaari yooyu seen cheikh
laaj bi ci topp dafa mel ne dese naa leer lool dafa wax ne jigéen ñi nga xam ne dañoo amul borom kër te nekk ay màggat ndax ñooñu bu ñu faatoo kenn war naa war naa toppatoo seen mbir.
waaw loolu bëgg la maa xamut jublu xam nga am na ci nit ñi nag ñuy wax ne jàpp ne wut boroom kër farata la xaw ma léegi waaye am na jamono bu nit faatoo ne umbam ko sax dañuy dem wut ak garab may ko nee nañ loolu ak jaahiliya la sëy du farata waxtu wu ne léeg-léeg nag bu doon nit koo xam ne soxla na ko te bu ko defut mën naa moo yàlla kooku sëy da ko war waaye koo xam ne koo xam ne ragalut lor su ko neexee toog noonu rawatina rawatina ñi nga xam ne dañoo nekkoon ak ay nit ñu baax kooku génn àdduna bàyyi leen yépp islam nee na bu yowmal xeamee boroom kër yi ànd ak seeni soxna dugg aljanna ku ci masa am ay ay boroom kër yu bari boroom kër bi nga mujj nekkal moom ngay àndal mooy doon sa boroom kër ci aljanna léegi nag boo amee boroom kër boo xam ne wali yu la nit ku baax la ñaare ñooñu duñ bëgg am na ci saxaaba yi koo xam ne loolu la waxoon daa am ku doon goro ginnaaw boroom kër faatu mu ne ko man diw mi nekkoon sama boroom kër moom laa bëgg bu ma demee aljana mu nekkaat sama borom kër te yontu asalaam dégg naa mu wax ne kii mujjee nekk sa borom kër mooy doon sa borom kër boo léegi kon ñooñu sax ñoo toog ba ñàkk borom kër lu tey buñ génnee adduna dañuy defal li ñu defal jullit ñëpp kon ci lu mel noonu lii tax sëy nag faras dal mooy nit koo xam ne toll na ci te xam ne ne bu ko defut mooy yàlla kooku mu dafa war def ngir ngir sàmm boppam musal boppam ci mooy yàlla.
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne. dafa julli ci sa jaade goo xam ne nii am picc da caa tuur ndox picc wala lu demee ni ki noonu tuur ndoxum picc du sobe ci masab malik mboolem yi naaw yépp yu laab la te xayawaan yi nga xam ne dañoo laab seeni nekkare du sobe muy xar yeeg day yéeg te yépp seen ngaanuwaay seeni du sobe kon sa jaade googu sobe wut xëy na nag bu taqee setal ko rafet na ndax li ngay jaamu yàlla lu mu gën a set mu gën waaye nag doonut loo xam ne boo ci jullee ñu ne da ngaa julli te amoo tahaaratul xabas ndax du sobe
kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb waat ci am njaay
waat ci am njaay de doonte li ngay wax dëgg la dañ koy tere bareel ko dañ koy sib ndax day xañe barke am na ci xadis bi wax ne ñi nga xam ne dañuy jaral seen marchandise ci ay ngiñ li ngiñ rek ñu bëgg mu jar loolu bokk na ci li ñuy tere ci lislaam ab jullit daal war naa mën a jaay ngir moom jar waaye bu mu dugg waat ndax waat di tudd tur yàlla ngir dëgërale ko li nga jaay bëgg mu jar bu dee wax ju amut la moom musiba mu rëy la bu dee wax ju amut waaye donte dëgg la ab jullit day moytu di waat ngir bëgg am jaayam jar sëñ Cheikh
jërëjëf sëriñ Mbacke kii moom nee na dafa ñëw fekk ay xale ñu yor lu mel ni ak kees bi ko ay picc moom fees nee na mu ñëw nangu picc yi bàyyi leen ñu dem ngir am yërmande ci picc yi am mu ne kon yërmaane ndax su boobaa kon war naa fay xale yooyu njëg gi wala déet sëñ Cheikh am yërmaane ci picc yi bàyyi gone yi gone yi am seen alal lislaam may leen ñu mën a rëbb ay picc xanaa bu fekkoon ñu koy ñuy mbugal picc yi wala yu mel noonu mu tere leen waaye bu fekkee dañ yor seen i picc yi bëgg koo jariñoo wala bëgg koo jaay am nañ ci sañ-sañ seen alal la kon ku yàq seen alal dana leen war a fay ndax gone sëñ Cheikh bàyyi xel ne kenn du ko mayeel alalam kenn du ko saraxeel alalam loolu lu mat di bàyyi xel léeg-léeg nit faatu ay gone yu tuuti na ca ñu ne alal ji nañ may nangam gone yu ndaw yooyu ku mayee seen alal danga ko layoo seen borom gone gu majeur agul dee su ko mayeel dee su ko saraxel moo tax lu mu bokk lu ne bu ñuy génne alal dinañ génne wàlla moom wala ñu ko may naka noonu yiit ay gone lañ kon seen alal ñoo ko moom bu mu leen ko saraxel bu mu leen jaamul yàlla
jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj nee na dafa am mbooloo moo xam dañu yor benn bitig bu mag su ajjuma jotee dañ koy awante maanaam bu ajjuma ji jotee ñii dañuy dem julli ji ñii toog ajjuma jeneen jot ñi julliwutoon ñoom ñoo dem julli ji ñi des toog mu ne waaye nag aar ba ñu toog nag aar bu mu kenn du jaay dara dañuy toog ci bitig bi rek
ku ajjuma war day boo toogee ji bitig ba am nga bàkkaar bu fekkee ñoom ñoo ñi awante ñëpp la ajjuma war la jaadu woon mooy bu ajjumaa ñu tëj boutique ba dem julli ji ajjuma ñoom ñëpp bu dee lu ñu dabu ji la ci lay ëpp wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaytu la yaxtasib waaye wax ne ndax kii wax ne du ma jaay daa gisu ku jaay ku jënd rek ki lànk bañ a julli ji ngir garde marchandise bu jënd ko diggee mu jaay te waxtu woowu jënd ak jaay daganu moo tax naa ko faral di wax jaadu woon nañu mel noonu rawatina suñu dëkk yu mel nii bu waxtu yooyu jotee rek ñu tëj bitig yëpp tëj gaaraat waxtu woowu tukki dëgganut jënd fi dara dëgganut lu dul ndox mooy jàppe ngir julli ji wala taxi bu la yóbbu jumaa ja nga julli waaye beneen pas-pas bu nit di jëfalante ak morom ma dëgganut ba ci saraxe dëgganut saa booy julli ji ñi yelwaat ci yoon wi sarax leen waxtu wu dëgganut boo bëggee saraxe ni nga ko julli bi sëlmal bépp pas-pas buy jëflante rek dëgganu ko lu dem julli ji dëgganu loolu nag mat na bàyyi xel kon wax ne jayut waaye day day garde boutique bi ngir bañ a julli kon yàlla jox ko ndigal indi ko ci kaw suuf ngir mu jaamu yàlla moom muy sàmm alalam joo xam ne yàlla naa war lu la cay wërsëgam bu dundee dana ci jot bu dee dana ci jot mu di ko garde ba bàyyi ndigalu yàlla loolu wóoru incha jërëjëf sëriñ bi laaj bi moom day wax ne koo xam ne dafa am dañ koo ameel ay bor moom it mu ameel bor ñeneen kon nan lay génne asaka bu toll ci war a génne asaka
waaw moom day xool alalam ni mu toll xool bor yi nga xam ne dañ ko koo ameel te ñi ko ko ameel mën a fay te waxtu fay jot loolu lépp lay boole ni lii mooy sama alal mu xool nag ñi mu ameel moom mu génne ko ci la ca def su ma tey nisaab mu génne ko kon moom bor yi nga xam ne bor bu waxtoom jot la te ki ko yor mën a fay waaye bu dee bor boo xam ne waxtoom jotagut wala ki ko yore yoru dara wala ku sàggan la koo xam ne boo ko fay du la fay te mënuloo ko dara bor yu mel noonu da ngay nekk ba jot ci asaka door ca wax waaye doo ko génne waaye bu dee nag waxtu fay ko jot na te ki ko yor mën naa fay wàññiwaale ko ci sa alal boo noppee génne ca bor yi nga xam ne yow yaa ko amee ñeneen la ca def bu matee nisaab mu génne ko asaka.
jërëjëf sëriñ bi kon xam naa nga indi rek kàddu gu soññu mbokki taalibe yi naa koor gi xaaj na te ñuy jëng ci xaaj bu mujj bi muy lu am solo ay baat yoo leen di gën a fàttaliwaat ñu gën a góorgóorlu ci fan yu mujj yi
ok jërëjëf sëñ Cheikh ñu ngi dellu di sant yàlla suñu borom di ñaan yàlla defal ñu tawfeex ba liñ fi jàllal lépp mu nekk njariñ ci ñun ñëpp ak ci sëriñ bi ñu bàyyi xel ne ramadaan xaaj na xaaj bu mujj bi ñu dëgmal nag mu ëpp solo ndax ci lañ ëpp yaakaar ne ci la laylatul xadri nekk kon ku amoon yitt ak farlo ci yokk lu baax ba waxtu bi waajal te gën ko yokk fonk guddi yépp ak bëccëg yi bëccëg nga den woor te woor gi daf ko ni ko sëriñ bi santaane mooy fa sawmu ay yasuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan lisan cër yépp koy def toog di déglu waxtaan yu mel nii yor sa kurus yor sa doll yor sa jukki ak yu mel noonu bu dog jotee nga dog bu guddee ngay naafi la kon dundal bëccëg yi dundal guddi yi loolu lañ soxla ci waxtu yi rawatina ak nag dimbulee waaye man ci lu baax di ko dimbalee nit ñi du islaam noonu nag ku dogal aji woor da nga am ci tiyaaba lu toll ne la la aji woor jàpp guddi yi ñu dëgmal nag guddi yëpp mat fonk rawatina yu tool yi rawatina bu ñu nee ba ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne moom Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu daf ko doon li'tikaaf nga xam ne ci jàkka ji lay dëkk te loolu mu ngi ko royee ci sàngam ba sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne dañoo wax ne mësta bàyyi i'tikaaf al ashru awaaxir ba ni mu mujjee yàlla borom saxaab yi daan ko def ay waa këram daan ko def kon it passé la ngir def lu mel noonu bu baax a baax ci waxtu wi bul wax ne woor naa fukk fan ak juróom lu baax lu bari def naa ko tàyyi naa sonn na déedéet yaa ngi jëm na ci li gën a mat gën a am solo sax na ne it Ibrahima alayhi salaam fukk fukk fan yu mujj yi daan na ci naafila daan ci nelaw waaye bu demee nag ba ci fukk yu mujj yi moom daanaka day dundal guddi gépp mbaa boog li ëpp ci guddi gi mu dundal daf daan daf bu fukk fan yi tàbbee mu laxasaayoo sori waa këram sant leen ñoom itam ñu jaamu yàlla ci guddi gi kon fukki fan yu mujj yooyu fukki mbaax la lu waay man ci guddi yi rawatina ay xiyaamul layli moo xam mbooloo la moo xam dara di ko def la yépp aw yiw la dàkk nag rawatina guddi yu tool yi ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom-ñaar ñaar fukk ak juróom-ñeent guddi yooyu am yaakaar ci ne lay tuxadar la ndax saa bu nit ki dajee moom am na ci tiyaaba ku jaamu yàlla juróom ñett fukki at ak nangam ndax genn guddi la goo xam ne weccee na junni weer te loolu juróom-ñett fukki at yu tegal loolu nag passé la boo xam ne kon mbokk yi maa ngi soññi sama bopp di soññi mbokk yépp ñu gën a def yitte gën a roy Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim sunu sëriñ mi nga xam ne Ramadan da koo fonkoon bu demee bay jeexit da ngay gis ak mettitlu ak di naqarlu ak demam moom bokkutoon ci ñi nga xam ne dañuy yàkkamti Ramadan jeex ba jàll ci la nekkoon mbokk yi xam yàlla ci Ramadan umpale ko ci bu Ramadan jàllee amul solo nii ñu góorgóorlu ci Ramadan bu jàllee it nañ góorgóorlu fexe ba mu des ci ñun mooy tax boo liggéey ñu bokk ci ña gën bokk ci ñay ànd ak Sëriñ Tuubaa di rammu ay mbool yàlla nañu ci yàlla boole.
jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane moom la ñu àndaloon ci sunu jotaayu tey mu doon indi ay leeral ci laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokki taalibu yi ñëw fii ci barab bi ñu ngi koy sant bu baax ci turu daayira muqaddamatu xidma di ñaan sunu borom mu dolli ko tawfiq dolli ko jàmm ak xéwal ak jaam yàlla bu ñu nangu te barkeel ay yëngatoom ginnaaw loolu